وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله واللي mu wax ci vidéo bi dara saxu ci ci sunna du lenn lu ci sax ci sunna raxas sa kanam jàngal fata koy raxas sa kanam lu tàng koy raxasaale koy raxas sa kanam maa la wax ngëneel yu bari ngi ci nag mënu ma ko wax ci rajo <laughs> ay léegi ko léegi nga gis lu bare bare est-ce que est-ce que est-ce que waaw yàlla dina dina dina leeral say mbir say mbir waaw nga raxas sa loxo ba sa conc mhm. booy booy masaa loxo ba si conc bi nga jàng innaan zannaahu fi laylatul qadr mhm. di nga raw say maas allahu inna anzalnaahu fi laylatil booy raxaw raxas fële mais gauche ba si conc bi innaa a'taynaakal kawsar di nga am wërsëg waaw bu yaatoo yaatu kay masaa sa bopp ku loolu laa waxaat ñetti yoon di nga am xam-xam di nga am gudd fan di nga am daraja yàlla dina la ko defal musal la ci pexey noonu booy masaa noppi wa taayaha usnun waaxiya loo loo déggati mokkal ko ah, booy masa booy raxas tànk ndoy joor nga jàng xul rabbil falax tànku càmmoñ xul rabbin ci booy raxas sa kanam nga jàng faatixa ñetti yoon booy raxas sa tànk sa loxo ba ci sa conco ndeyjoor nga jàng inna anzalnaahu booy càmmoñ ba inna ataynaaka alkawthar booy masa ak loolu mu lim ba daaneel ba nga yegg ca tànk ya fan la feeg naasi ak yem ca teg ci ay ngëneel ne boo ko defee lii ngay am boo defee lii lii ngay am yooyu yëpp dara sax ju ci sunna te bu doon yii ay lu ñu sopp la cim njàpp wala njariñ yi mu wax mi ngi ci bu boobaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko leeral bala fee jóge lii mu wax nii boo ko laajoon lan mooy firnde li ci alquran ak ci sunna du la ko wax mukk waaye mi ngi ko teg rek ci ak rafetlu moo ko waxee fu mu ko mën a teg fudul ci ak rafetlu te diine du diine rafetlu diine li ci rafet mooy li nga xam ne sharia ko rafetlu li ñaaw mooy li sharia ñaawlu waaye bu doon nit ku nekk ak la ngay rafetlu bu boobaa yow li ngay rafetlu man dama koy ñaawlu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel nii bu ko nit di saxal ci diine te jógewul ci moom tuuma la ju ko nit kooku di tuumaal te ko mooy lan moo di ne lii de lu ñu war a def la ci njàpp ak booy rax cir sàngam nga wax saar sàngam da nga am ngëneel sàngam yonent bi dund fi ba jóge fi moom defu ko jàngalu ko saaba yi ñoom xamuñu ko woon ba jëmmi jamono nit ñëw di saxal ci diine buñ ko nangoo rek tuumal nañu yonent kon dañuy wax ne kon amna lu baax lo xam aw yiw la ci te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko lolu euh kenn wuru ko saxal ci diine ji ndax tuumal lu reuy lu ñuy tek ci kaw yonent yalla muhammad naka noonu mboolem xeetu bida bo xam nit da koy rafetlu nan bo defee lii baax na nga am li te bo xolé ci la yonent jangalon saaba ya do ko fa fekk bu boba ci buntu bi lay dugg kon nañu gën a lu sunu diine gën cee amuk dégg te xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon wéy na mooy wépp yiw wu leen di jegeele seen boroom xamal naa leen ko wépp ay wu leen di soreele seen boroom di leen jegeele sawara tere naa leen ko waaw ndax lii mu wax nii yiw la woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko xeet wi laata mu fiy jógee kenn mënu laa indil firnde luy wane ne yonent bi jàngale na ko mukk ndax bu ko jàngale woon dana ko jëfé saaba yi danañ ko jëfé te danañ ko doxal mu ñeel xeet wi ñi ngi ñaan borom bi tabaaraku ta'ala taala li ñu defal tawfiq té lu mel nii ñëpp mën nañ ko suma neexoon légui ma lim yenen saar yu bokk ak yim lim daan ne booy cër bi waxal li boy jang cër waxal boy julli bo taxawé jublu penku bala nga kabar waxal li bo selmalé waxal lee tek samay mbir tek ci samay bu boba ana lan moy saw lay ak mu lay comme kii ni mu aw lay kon diine ji topp la diine ji nañ jàngale li yonante jàngale woon te fa boo deful rek da ngay wax ci بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى